Salam alaikum la famille. Salam alaikum les patriotes. Salam alaikum à tous ceux que nous avons nous de live, nous avons de vidéo. Live, euh, je pense que patriotes nous avons comment. Donc peut-être je vais parler dans un cadre général. Amna ñu bari ils s'attendent à ce que peut-être ma am de fële mais rassurez-vous demain, non, noonu quoi parce que man je l'ai toujours répété man li tax li ma indi si réseaux sociaux yi mooy protéger le projet de Pastif... promouvoir le projet de Pastif... te ci loolu la lay sax je vais parler de Birame Soleil, mais je pense que erreur bi mu def tey parce que erreur la dafa dëggal position bu bari yoo position boo xam patriote yu bari amoon nañ ko par rapport ak affaire cumul bi dès le début damay commencé ci la mooy ñi ne le débat du cumul war doon am biir pasteur mooy ñi jàpp ne investiture yi sax waruloon mën a nekk bu fekkee ne ci parti politique lañ nekk bu organisé wu dafa am loo xam ñoom ñoo ko moom ñoom ñoo tànn seen stratégie ni dañuy tànn ay nit ñoo xam yor nañ poste ba pare yóbbu leen lu ñu xam ñu dem ba ci biir ñun ñu gis que am na lu ñu indi ci projet bi loo xam ñun dañu jàppoon que ne amu ci ñun ñi jàpp ne ah yoon mënu leen ci daan kenn mënu leen ci def dara tey Birame Souleye ak Cheikh yu Bey bu ñu leen dàqontee ci parti bu leen neexee ñu porter plainte dañuy daal Pastef le président Ousmane Sonko amul benn prérogative légale bu ko may mu génnee wala mu jël yenn décision yi génn na wax ñu moral parti bi le président Ousmane Sonko moom moo ko moom peut-être moral mooy contrat bi nga xam moom moo ñu lié ñun ñëpp ak ah, projet bi ñun ñëpp moral moo ñu dugal ci projet bi ñun ñëpp ñun ñëpp moral moo ñu dugal ci projet bi moral nag mooy li nga xamante ne ni projet bi moom la woote ñu bind ko ñu wax ko wala ñu mëbët ko ba ñëpp jot ci doxalin ñu xam ne nii la ñuy doxe ñu dem ba si biir gisuñu ko ñu ne lii bëgguñu ko loolu la yenn patriote yi wax mu am nag une partie bu ne nañu bàyyi ñu dem du coow lii du focus mu doon loo xam man dama jàpp ne loolu mooy démocratie man dégg naa ci lu ne mais je suis resté ci samay position parce que dama jàpp ne principe la am nañu ko xeex am nañu ci nekk parti bi génn joxe position am Bassirou Diomaye génn joxe position am Abass Fall génn joxe position am même El Malick communication parti bi joxe na position am ñu ne position parti bi de lii la Cheikh Aliou Bey ak Birame Souley yi kenn ki na yoon kenn ki deux fois Cheikh Aliou Bey génn benn yoon am nu tey position am na du ma changer na de mais avancé na ci lu bari man personnellement wax na ma lo xam man meun na ko dégg yaangi ngi biram Birame Souleye génn na waxoon loo xam meun nañ ko dégg yaangi ngi parce que bëgguma ñëg wax dama bëgg ñu situer responsabilité yi bi mu waxé loolu Cheikh Aliou Bey bi mu génné par exemple mu wax ñu bari dañu né d'accordu ñu parce que dafa né mom du bayyi té parti bi dafa né day bayyi ñu mettre ko devant ses responsabilités moom ay patriote ku melni ni mu mel man jël seeni responsabilité continuer di mën combat parce que dañu jàpp des principe la bañuñu ku ñu ci mere dégg nañ ci lu ne man saaga nañ ma ci né dama jàpp ne dama ko doon mën ak en fait de bonne foi en fait man j'ai toujours dit que sumay joom ci parti bi doon de bonne foi sumay am dëgg na doon de bonne foi je l'ai jamais fait pour yakal parti wala yakal le président Ousmane Sonko je n'ai

Biram soulay génn ne moom dina tànn benn ne mën am c'est son choix le choix du parti mooy cumul warul am cumul warul am te kulli ko xeex ba neex cumul moom man dama jàpp ne dañ ko ko parce que bu fekkente ne ay poste député que maire lañuy nekk ci am ay gàllankoor te yoraguñu réew fa ñu jëm du baax bu dañu ne ci ci mi ñuy xuloo ak ñi koy négocier ñun waruñu toll foo xam dañu yor si yor as néew ñu compal ñu si jox ñu ñu ciy négocier di ci wut ay explication man loolu moom moo si suma position te loolu noonu ci loolu laay sax le prend Ousmane Sonko génn wax waxu moral comme ni ma ko waxee yaa ngi dégg ñu bëri peut-être doon xaar mu jël yenn responsabilité ci xeex bi ma ne sur le plan purement légal dafa am lu ko tënk mënu ci sori moral bi mu wax nag. man laa ne woon sama benn poste que ne moral bi ko mayoon mu ne Barthélémy Dias defal ni mënoon na ko may mu ne lii Birame Souleye mais du loo xamante ni lu may xaar la obligation mu def ko parce que man dama jàpp ne dans ce combat sax moom bëri peut-être mën nañu bañ a ànd ak man dafa bokk ci ñi nga xam dañ leen ci war a préserver parce que c'est un combat de personne ku ci nekk jël say responsabilité def li nga war a def yaa ngi dégg sur sa responsabilité moom mën nañ ci wax lu bari mais man dama jàpp ne moom. mën nañ ko épargner mu sori trop ci yenn combat yi parce que moom bu fekkee personne personne kese la moom am na loo xamante ni en tant que tel wane na ko wane na ko maintenant en tant que leaderu passif est-ce que war na ci jël décision anduma à cent pour cent ci ni mu aborder question de morale bi mais dama jàpp ni toll tolluñu forces foo xamante ni war naa exiger ci moom mu am nu mu doxalee. Lolo aussi moy sama position ci mom légui guinn na ci bi am lu mais ci biir wax ci mu laal lo xamanteni il a fait une très mauvaise communication contexte bi baaxul te dina ci ñew ko te il doit revenir il faut waxante li wax c'est de l'arrogance caractérisée waru ko wax waru ko def il va en subir conséquences yi si nekk en tant que politique na dem yaa ngi parce que man gëmuma ne li mu wax ci réseaux sociaux yi du nekk la parce que ci ñi muy wax ci réseaux sociaux yi am na koo xam mi ngi dëkk ci wetam yor téléphone am nekk ci réseaux sociaux yi te votel na ko votel ko c'est-à-dire gis nga chaque jour mo wax ko li nek ci réseaux sociaux yi il faut que ñun ñuy won Sénégal ak ñu ko sékkal que ne c'est pas parce que tu es dans les réseaux sociaux que tu es moins méritant que wala ki nek ci télé yi wala que responsable wala un jeune comme yow bi nek ci parti bi mo mo la ëpp mérite beaucoup de gens ñi nek ci réseaux sociaux mën nañ ma sédé li ngay dund en dehors des lives temps bi ngay perte yow ci yow diko def ci projet bi li ngay live mo ci gëna a tuuti te ñi live ak ñi nga xam dañu fësal seen engagement ci réseaux yi mën nañ xam li may wax ñi nga xamante ni laa la dañuy live man sama cas naa ko jël li may perte énergie temps ak leneen en dehors de quinze vingt trente mille heures temps bi may live leneen li may def ci parti bi moo ko raw foofu foofu laay gën a ñàkkee sama temps foofu laay gën a sonnee sax ci projet bi live mooy li gën a yomb man ci sama engagement personnellement live mooy li gën a yomb man ci sama engagement donc waru ko wax mais ñun dañ ko devons dénoncer nous, nous lañ ko dénoncer Bala ken du ko dénoncer li ci neex moy Pastef moko le dénoncer parce que réseaux sociaux yi c'est Pastef man je suis un militant encarté nek nek ci parti bi bokk ci cellule bokk ci section bokk ci coordination am sama position sur certains sujets mais respecter aussi cadre normal du parti bi mais cumul bi nek lo xam ku ne mën na ci am cadeau légui fi may attirer attention patriote moy woné wane nañ que ñun dafa am combat boo xam dañ ko gëm wane nañ que ne nekkuñu ci ay nit mais aussi il fallait que ñu wane respect bi nga xamanté ni ñom dañ ko wara am ci ñun parce que ñun ñëpp ñuy saga, bu joggé ci ñom nak da fay xawa doy war entre guillemets saagawul mais bu joggé ci ñom rek da fay xawa doy war parce que ñom fu ñu sëngeemee wala fu ñu jaaxlee ñun ñu ñëw taxaw té te ñu kenn wooñu mësuñu xaar ñu remercier ñu mësuñu xaar ñu jaajëfal ñu mais la moyenne des choses mooy ñu respecté ñu lolu moy la moyenne des choses mooy ñu respecté ñu té respect bobu ñun dañ ko wara exiger mais avec la manière man je peux comprendre beaucoup de gens yu naan noo waruñ wax ci cumul bi ñoo waruñ def lii ñii ñi naan da nga soof ñi naan waruñ je peux comprendre parce que dafa am ñoo xam préoccupation bi ñu am mooy projet bi ñep ñaan ñaar ñep bëgg projet bi na fa bëgg projet bi bëggu ci dégg dara mom pour mom nañuy wax lu rafet lu bax rek Ousmane Sonko waaw ya rafet yaa Bassirou Diomaye ñu dégg leneen am ñeneen ño xamanteni ni même souci bi lañ am protéger le projet mais dans le sens où bëgguñ dara dugg ci lo xamanteni lu koy yak la ñoo ñu ngi ci xolu projet bi ñun ñaar ñep dañu bëgg projet bi ñun ñaar ñep ñu am benn bëgg-bëgg bi mais yow mi japp ne bëggoo dégg ciop sef bëggoo ko wax ci loo xam daf ñuy déranger pour yow ku wax cumul ndongo Diop mu ngi fa la ñu tëj yaa ngi wax cumul pour yow non non non non non non non yow li nga bëgg mooy projet bi set mu rafet bu ko dara jege. keneen ki fi mu gisee ba tax mu naan day bañ cumul aussi même préoccupation bi la am mais moom il est dafa dem ci fu gën a profond moom mu ngi protéger la quintessence du projet il n'est pas dans le moment présent moom mi ngi xalaat tey mi ngi xalaat suba moo tax.

Patriote yi da ngay live sax ne président Ousmane Sonko ñu ne la non bu ne Ousmane Sonko waxal président Ousmane Sonko léegi ci li may terminer bugguma live bi live bi gudd Birame le président Ousmane Sonko daf ko jël là maintenant je parle aux patriotes là je parle politique suñu combat interne wane nañ signal gaay xam nañ fi ñu féete dinañ ko compter di ko mais dafa am benn enjeu bu am c'est là où même j'ai pas compris

parce que la pertinence de faire une conférence de presse pour parler de la mairie Monon na d'autant plus que souba la ñuy dem plénière la pertinence de parler du cumul c'est-à-dire man gisuma ko lan moo tax mu def ko moom dina ci tontu te man pour moi, il va s'expliquer te man pour moi, dafa va demander pardon aux patriotes qui sont dans les réseaux sociaux parce que man bu ko deful mënatul am sama respect man personnellement mais dafa am lu jéggi biram su soleil moy projet bi ñu yor le président Ousmane Sonko porté ko mom dafa am lu muy représenter tay c'est le président du groupe parlementaire de Yewi Askan bi suba ñu wara dem plénière Ousmane Sonko mi waroon le tour du Sénégal ne di dinañ fa samp ay député yo xam wuté na yoog li fi ne kàddoom bobu dañ ko wara dimbalé dimbale ñu ko samé suba mom bu ko faté ñun dañ ko koy fàttali mom bu xamul ne looluy focus dinañ ko wax né li nga wax waro ko wax neexuñu ñu tontu ko ba paré del ci si nag nekkoon li nga wara lijeenté moy suba nan la ñuy fexee ba am taxawaay boo xam suba assemblée nationale jëlee nga président Ousmane Sonko accum yow de jar ngaa votel 2024 parce que lan ñu waxoon ci ay député gis nañ ko loolu moo war a nekk suñu préoccupation moo tax lu ñu mer mer mer mer mer ñu relativiser nañu gérer yu bari suba ce qui importe demain mooy suba la première plénière bi war a am à l'Assemblée nationale suba la ay ndaw président Ousmane Sonko war a toog assemblée nationale dëggal li nga xam wër na Sénégal wax ko wax ko ci ñaari conférence de presse am yi yeggul taxaw ne carrément di ngeen gis assemblée lan mooy député Birame Souleye foofu noonu la ñu lay xaar suba. li nga wax mënuloo ko rattraper mais li nga xam moom moo la sut sut ñu sut ñu ñun ñëpp suba dem leen ngeen représenté ñu ngeen jëmmal loolu noonu à l'assemblée nationale. man pour man foofu lañu war a xalaate beneen bi mooy Birame Souleye basiiru Diomaye Issa Abdou Aziz keneen ak keneen warul tax ñun patriotes ñuy jël ay position ba mu am fu mu war a yegg bu ñu mës a nañ ko ñaawlu ba ñëpp xam ko parce que balaa keneen bi wax ñu xam ne carrément ñun ñu ngi koy lijjantil suñu bopp li ñu war a éviter mooy mu nekk ñun suñu biir mu nekk ñun suñu biir mu nekk ñun suñu biir nañu respecter position yi mais man pour man li ëpp solo suba moom mooy plénière yi war a am Birame Souleye foofu lañ koy xaar foofu la ñuy xaar suñu député yi te ñoom aussi suba aussi ñu wanaat leen que ne ñun sans ñun mënu leen bouger parce que suba Birame du RTS moom moo lay wane du kenn moo lay wone ba nga demee Thiès dugg fa def la nga fay def biñ ci jotee ñun ñoo ko tasaare ba Sénégal yëpp jot ci gannaaw ba ñu la tasaare ba Sénégal yëpp jot ci li mu def tey lu ñuy baale mais lu ñu mën a teg suñu tànk la dem sur l'essentiel mu bañ ñu nëbb dara luy xew suba nañu fàtte Birame Souleye bu fekkente ne défendre suñu projet bi suba dafa war a jaar ci défendre ko moom nañu ko defendre bu fekkente ne défendre projet bi suba dafa war a jaar ci ñu partage vidéo am partage li mu wax dooleel ko màggal ko nañu ko def ngir jëmi projet bi mais nañu ko xamal dëgg que ne dangaa juum te sans ñun doo dara bu nangoo nag am maggaay bu tax mu reconnaître son bu ko man il n'a plus mon respect très sincèrement je le dis et je l'assume live gars suñu mer bu yegg ci bu ci yenn dimension yi suñu suñu suñu suñu amertume bu ci yenn dimension yi ak mer nañ ko nañ ko nañ ko ba bu maintenant ñu dem muy képp ku muy mën a nekk ci projet bi muy man muy keneen muy man muy keneen mais aussi surtout ñu def ko ngir jëm président Ousmane Sonko nga xamante ni ci biiri nawleem am na kenn ku mu tànn ci ay ñooyam ne ko demal nga liggéeyal ma lii nañu fexe ba liggéey boobu noonu suba mu ñëw loolu laa bëggoon a partager ak yéen gars yi nañu ko gérer avec beaucoup de philosophie nañu ko méttul avec beaucoup de philosophie mais bu ñu nangu Birame Souleye nekk sax koo xamante ni dañ koy teg ci benn position boo xamante ni voilà je pense que à travers Birame Souleye c' est tous les responsables du parti qui sont interpellés respecter les militants réseaux sociaux yi benn furtu la boo xam lu am ñu dal suñu kaw te pourtant les réseaux sociaux c' est des gens responsables ñoom ñoo fi nekk gars yi bëgg ko projet bi ñoo ci nekk man je connais des gens qui sont dans les réseaux sociaux ñii xeex nañ mois de mars damm kenn dégg ko kenn dégg ko ils ont fait un travail remarquable laa lay wax nii ci li ñu xam ak li ñu xamul leneen yi fi may terminer rek mooy ñun les réseaux sociaux chaque jour ma wax ko gis nga uude ni mu la gisee rek la lay ëwalee sama bopp laa koy commencé nañu exiger respect boobu noonu ñu am ko ci ñun pour ñu am ko déjà liy jóge ci ñun la dem ci ñëpp moom mooy ñun ni ñuy taxawee ni ñuy defee muy man ak ñëpp ah, ni ñuy bindee ni ñuy taxawee c'est-à-dire comportement bi nga xam dañ koy am ñun ñu am ko ba pare ca wàll ba nag ñu exiger respect boo xamante dañ koy am parce que arrogance bi mu waxee c' est comme si réseaux sociaux yi tekkiwuñu dara bu fekkente ne nag waa Kër Ñàkk Jàmm dañu ne ñun tekkiwuñu dara ñi nga xam ñoom nekk ñu tekkiwuñu dara ñun lan la ñu jàpp ñu bëri nañ jàpp dama protéger le président Ousmane Sonko parce que tey je parle au nom des réseaux sociaux man mosuma dégg le président Ousmane Sonko fu mu gën a méttee ñi duñu xarab mu ñëw nañu ñii ay anticorps lañu mu ñëw nañu ñii arme bii la am pour pour kii ka des fois mu rappelé ñu en ordre aller vers essentiel mais fu ñu war a taxawee défendre moom la premier bi nga xam moom mooy jëmal parti bi taxaw na défendre ñu taxaw nañu nii laa sare wax na ko fu fu gën a dégg ak fu ko ni déggul moo tax man loolu rek laa mën a waxee ci moom Birame Souleye nak mom mo xam li tax mu dem ba japp ne peut-être ni la wara a waxee la erreur la faute la lu muy mënti nekk won nañ ko suñu désaccord mais duñu ñu wu ci mom parce que du mom nañu xol nuñu gérer suñu projet bi suba à l'Assemblée nationale après ñun suñu dinañ xool lu ñu ko gérer après ñun suñu biir nañ dem ba ci kanam ba xol mom ban comportement lay adopté par rapport à tout ça gars yi loolu rek laa bëggoon a laay partage ak yéen ni ma métti la métti ñëpp mais il faut qu'on il faut qu'on avance en fait voilà yeneen mi ngi ñuy xaar yeneen ñu ngi ñuy déglu Sénégal mi ngi ñuy dég ñu ngi ñuy déglu Sénégalais ñu ngi ñuy xaar quoi ñu wane suñu amertume mais c'est l'occasion aussi de montrer notre maturité pour dire que voilà ñun xam nañ lu ñu bëgg xam nañ fi ñu jëm quoi projet Pastef bi du ñu bàyyi dara mu koy taxal xam nañ lu ñu bëgg principe bi ñu buggal ci combat bi gis nga projet bi projet bi projet bi xaw ma nee nañ parti politique xaw lu mënti nekk mais dafa am loo xamante ne xaju si du ci te ku yaakaar ne mun nga ko négocier xaj-xaj nit ñi jay la waaw mii kërëf kërëf ba nga yaakaar ne ci nekk buñ demee ba ci kanam diñ ko comprendre saa ay projet boo xam nit ñi dañ ciy joxe seen bakkan du neen projet boo xam nit ñi dañuy pare pour dee di bàyyi seen lëpp du du wayaa wayaa du nii ko donc na ko gars yi comprendre noonu quoi maa ngi jégalu ci kàddu yi di leen ziar bu baax di leen bégee di leen jox rendez-vous peut-être ba ci fan yi incha allah voilà jaajëf